Euh, nee na Madonna euh, am na 58 ans barki démb. ma ngay màgget de même si boo koy xool elle en fait 30 ans boo koy xool. Ah t'as pas l'impression qu'elle fait 58 ans. elle a eu Madonna sincèrement su ma mënoon mel ni moom à 58 ans du ma wax dara. et puis ñun mag ñi dañu ko tuddee la femme aux mille parce que tout le temps day changer kanam elle change tout le temps et depuis année yu mu commencé way matériel girl comme ni ñu koy woowee. chaque instant. Euh, moom mooy reine de la pop on peut dire du euh, pop musique. te mooy mag yooyu nga xamante ni génération bu ñëw ñu ànd ak. ñu ànd ak yow loolu lay wax waaw <laughs> voilà parce que même Tina sax xaw na arrêté musique mais Madonna génération bu ñëw elle s'adapte. Tina kenn demul yooyu Tina moom Madonna. ah nga ni fii tëgg na waaye ay maga dem. waaye kii xale dañ koy baali. waaye dafa yëngatu comme xale de. Madonna mi non mais non mais non mais. Cuba Cuba la doon fêté anniversaire bi à la ah Havane donc foofu la dem ak ay proches am lundi lañ fa dem def ay visites amusé wu. Ah. mardi ils ont fêté l' anniversaire fecc na foofu ba tas fa. te da doon continuer visite bi ba mercredi en tout cas li ngay wax génération bu ñëw dafay ànd ak yow. depuis euh, suñu ñoom yaay am na style de musique bu ñu doon def. bu ànd ak ñoom avant suñu ñoom yaay ñoom yaay. Ah. Eh? <laughs> sama maam déglu na Madonna sama maam déglu na Madonna loolu fort na donc actuellement dafa jël musique am ko au goût du jour ba nga xamante ne nouvelle génération yi aussi dañ koy déglu tout le temps day génnee ay album même si ça ne cartonne pas comme avant, comme avant ouais. ça comme pourquoi am 58 ans. Ouais. voilà je sais pas euh, Mado war secret euh, pourquoi elle se maintient am ans ba pare. Euh, elle fait beaucoup de sport parce que à ses tu la vois elle danse beaucoup. Donc elle bouge beaucoup Ah, elle est en plus voilà. ans. a ah, une bonne alimentation. Euh, ay polémique yu sexe yi muy sol parce que dañ naan que actuellement ak âge ak doomam yi ni ñu toll mère la donc parfois day déraper carrément parce qu'elle veut pas se faire oublier en fait donc du coup day jékki-jékki sol benn yére boo xamante ne àdduna bi ñëpp siy wax comme ça kenn bañ ko fàtte surtout day xale rek lay am ah. waaw waaw waaw yooyu sax day rajouter moom am na je pense am na ñaari doom yu mu jur ak yu mu adopté ak ñaari doom nag wax dëgg yàlla nag vraiment mais El Hadj yow daan nga déglu musique Madonna à l'époque. day fàtte day fàtte. c'est vrai la Isla Bonita boobu dem na ci génération yu bëri. y a aussi Frozen ak yeneen woo yu siiw ah. yéen yéen tamit de mbay xaw ngeen yéen yéen ngi bëgg non mais non mais. la la la isla la isla la isla bonita moom ku ko woy ku ko woy màgget nga moom ku ko woy meer nga maa ngi xaar ba kenn woy ku ko fi woy meer nga <laughs> merci en tout cas bon on lui souhaite euh, un bon anniversaire moom Madonna qui a célébré son anniversaire foofu ca euh, la Havane voilà comme quoi dañu toog fi ñu toog